mbokk yi dal nag jàmm ci xibaar yi euh, suba gi mu bàyyi ko fii ci Sahel Network TV ñu fas yéene indil leen li nga xam ne moo gën a fës ci boppi xibaar yi juróomi nit bind nañ seeni tuur ne am na jàngoro bu ñoo wax Covid-19 nguur gi nag xamle nañ ne wàññi nañ li nga xam ne moom mooy euh, njëgi foyal fii ci biir réew mi parti boobu ñuy wax UDP teggi nañu dàqalu bi ñu doon dàqalu boroom kër yi BAC muy Brikama Area Council ak yeneen i farandoor Kim Jong moom nag feeñ na ci mbooloo mbokk yi taxiru leen tuuti rek ñu indi leen yaatal ci wàllu xibaar yi jàngoro bi ñoo wax coronavirus dafa reye te dafa wër àdduna réewi Gambia am nañ ñu ees ñoo xam ne jàngoro bi dal na leen bul raxas sa loxo ak ndox bu tilim nanga fexe ba booy raxas sa loxo mu nekk ndox boo xam ne mu ngee daw nga àndale ko saabu te it di jonj sa loxo lu toll ci ñaar fukki seconde na ay ndaje yu mel ni ngénte ak takk na ngeen moytu di lekkandoo ci benn bool nangeen góor góorlu ci sëriwante aaral sa bopp te aar say njaboot ngir bañ jàngoro gi tasaaroo toog leen seeni kër yi comme ni ñu ko xamee ne dëgg-dëgg mu ngee kawe jàngoro bi nga xam ne moom la ñuy wax euh, COVID-19 ñi xam ne loolu nag mooy bunti jawrin bi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu wérgu yaram bi fii ci biir réew mi di xam ne ne bind nañ juróomi nit ñoo xam ne gis nañ jàngoro bi ñuy wax COVID-19 ci seeni yaram ki nga xam ne nag moo xamle loolu mooy borom kër yi bunti wérgu yaram bi ñu xamee ko ci docteur Moustapha Biteye moom nag wax na ne kenn ki nga xam ne moom moo bàyyee ko foofu ca euh, Central River Region ne am na ko waaye bu ñu seetloo ñeneen ñaar ñi ki leen ko wàll mooy ki nga xam ne euh, moo tolloon ci fukk ñaari nit ki nga xam ne moom moo amoon jàngoro bi yeneen ñette ñi nag ñu ngi ko jëlee ci ki nga xam ne moom moo amoon jàngoro bi bu ñu ko doon xayma ci lim mu ngi tolloog fukk ak benn jamono ji nag ñu ngi leen yóbbu ci këri berukaay yi ba léegi rek ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan bañ jàngoro ji ñoo wax Covid 19 tasaaroo buntu jëwrin bi nag ñu ngi gën a xamle ne daal ñu ngi jël jéego yu am solo ngir jokkalante seen diggante ak seen naataango yu nekk foofa ci réew yi Sénégal ba seen doomi réew ya duñ mun a porox ndool lu dugg fii ci biir réew mi ngir tasaare fi jàngoro ji ñoo wax euh, coronavirus. jëriñ li nga xam ne ñoom ñoo saytu wàllu koppar gi fii ci biir réew mi xamle na ne wàññi nañu njëgi diesel ak pétrole bu ñu ko déggee mooy essence ak gasoil ak li nga xam ne moom mooy kérosène comme ni mu ko xam ne rek wax na ni nguur gi daal wàññi na li nga xam ne moom mooy njëgi euh, diesel bi wala wàññi na njëgi pétrole bi ndax bu ñu seetloo njëgi pétrole mu ngi doon jar muy essence mu ngi doon jar ñeent fukki dalasi ak juróom ñeneent bu teg fanweeri butuut ak juróom benn waaye ci jële jamono wàññi nañ ko ci ñeneen fukki dalasi pour litre bu nekk bu ñu seetloo li nga xam ne moom mooy diesel moom nag euh, juróom fukki dalasi la woon pour benn litre waaye jamono ji nag mu ngi jar ñeent fukk ak ñetta li nga xam ne nag moom mooy kérosine mu ngi doon jar ñeent fukk ak benn bu tekk fanweeri butul ak juróom waaye jamono ji nag wàññi nañ ko ci fanweeri dalasi pour litre bu ne. ba tey rek jëwriñ mi nga xam ne moom la ñu dénk bunt boobu ba léegi mu ngi xam ne ne lii nag dafa bokk ci euh, liggéey bi nga xam ne moom la nguur gi di liggéey ngir doon càmbar pour seet ñoom it naka la ñoo mën a dimbalee ñi nga xam ne ñoom ñooy driver yi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo lu nu mel. parti bi ñuy wax United Democratic Party ñu xamee leen ci UDP ñoom nag teggi nañ dàqalu bi nga xam ne ñu ngi ko doon dàqalu ki ñu wax Seyfo Sonko muy borom kër gi nga xam ne moom lañ dénk Brikama Area Council ak ki ñu wax Councilor bilaal Fall ak ñeneen ñi nga xam ne euh, seeni farandoor lañ te façon nañ indi pour génne leen ci seen pati bi. comme niñ ko yëglee wax nañ ne nag teggi nañ loolalee ndax buñ ko seetloo àndut ak li nga xam ne moom mooy baatu réew mi te wax nañ ne nag dëgg-dëgg gisuñ benn sukkandiku waay goo xam ne mën nañ caa sukkandiku pour leen ci li nga xam ne moom mooy parti bi loolu tax na ba moom Sonko day xamle na ne moom ak ñi nga xam ne ñoom lañ doon bëgg a génnee eh, am nañ mbégte ci ne ñoom day delluwaat nañ muy parti bi di UDP delluwaat nañ pour xam ne dëgg-dëgg fañ bëggoon a teg seen tànk du foofu ndax lépp loo xamante ne rek mbiru dàqalu la dafa war a tegu ci yoon ci euh, sànni karta foofa li ca région bi ñoo wax West Coast Region. ki nga xam ne mooy njiiti réew yi North Korea ñu xamee ko ci Kim Jong moom nag gis nañ ne fes na wala feeñal na boppam njëlbeen ni yoonam gannaaw bi nga xamee ne ñu ngi doon ruumandaay ci àdduna bi ne dafa ñàkk bakkanam ci social media yi. wax nañ ne nag euh, moom njiiti réew moom moomale gis nañ ko ci benn euh, bunti liggéeykaay goo xam ne factory la euh, Fatalay sa factory la foofu lañ ko njëkk a gis gannaaw bi ñu ko tuumalee ne dafa dee. xibaar yooyu nga xam ne nag moom nekkutoon dëgga nit ñaa ngi doon rumandaay di wax ne moom nag uh, wérgu yaram mayu ko ko woon te buñ bàyyee xel maamam dafa am uh, ndaje boo xam ne dañ ko ko di faral di màggalal gis nañ ne nag ndaje boobale yàgg na di ko teewee te bi la yoon teewee ko loolu tax nit ñi doon wax ne dafa ñàkk bakkanam te ndaje moomale uh, taxawoon na wala defoon nañ ko nit ki weeri avril bi ñu woon ginnaaw fukki fan ak juróom mbokk yi loolu mooy li ñu leen amaloon fii ci sa xel Network TV muy xibaar yoo xam ne fii la bàyyeekoo ñu di leen wax ne rek soo leen bëggee di ñu topp saa yu nekk dee leen a subscribe ci bitoŋ bi dee leen a ring li nga xam ne dee leen tëgg li nga xam ne moom mooy bel bi ba li mbay la ñu jox leen dig daje bi beneen jëme jamono jërë ngeen jëf